point de presse tey bi li waral moi que ni depuis 50 ans jour pour jour depuis 1970 El Ibrahim Ibrahima a fait organiser julli Salatul tasbiya ñu koy def fële si Ngexoox te julli googu euh, sëñ El Hadji Ibou Sakho def na ko ans bi mu fi génnee àdduna ak tey sëriñ Habib Sakho di euh, taawam di xalifaam yore flambeau bi depuis 26 ans julli gogu am importance bu toll ni ci ju ñun jullit euh jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am njëriñ lu am solo ci dundu doom adama xëy na sëriñ bi dina ci ñew ca kanam wax leen lan moy importance su julli salaatu tasbiya kon suñu ko jullee 49 ans ren nek 50e année bi mu coïncider wu ak problème yi nga xam ni moo am ci àdduna bi muy coronavirus bi. lii am il faut que ñu soppi doxalin ci la sëriñ bi waxtaanee ak njaboot bi ginnaaw bi mu waxtaaneek kilifa diine yi mu bokkal réew mi yëpp xam ngeen moom lépp lu muy def rek daf koy waxtaanee mbokki jullitam yi mbokki taalibeem yi ginnaaw bi mu waxtaanee ñoom ba pare ñu gis ni julli gi ren di fa dajale mbooloo du mën a ne. defe naa ne bi yoon la lëf masa dal. adina ñu sentir ne ñun ñepp ko bok ak diine jo mën bok ak couleur bu sa yaram mën doon ak xel sa xel foko ko tek yeg nga li xew ci adina bi fu mu ne sa xatar xatar ak sa ragal yalla bu taxé nga wax ne wala nga bëgg sa saw tur dem ci ci nit ñi ci média bi ba tax ubbi leen jakk ji buñ ko ubbé buñ jullé ba ci ëlëk sa am ñaar ñu fébar nga am gatch ñu démé nak ba fébar ba yobbu ko sax maa ci mu faatu askan waa njaboot ga ku ñu rombati ne jàkk yu bàyyi diw bii la diw doon jullee ba dee pour daw loolu daw tuuma boobu soo borom teggil na la buuxante ci biir jàkk ndax du obligation loolu daal laa laa laa gis ne mooy mooy xalaat bi xalaat bi daal mooy wa ma ateekum rasul fa xuzuhu bu ñu leen tereetee tere goo xam ne mu nga jóge ca làmmiñu ca kaw ku la ëpp nopp ëpp xam-xam tereetee mbir vérifier ko ba xam julli gi ñi ñuy wax ci jakk yi ak ne xanté bi ak am yene ubbi ko yene ubbi ko bi yaakar naa ne bëgg bëgg nit ñi la ay leen nit bëgg lu mu xamul ba di ci son ba di ci fay ba di ci jël avocat mu soti xëpp ci kawam yaakar na dal di buntu yi ñu delu bàyyi nit ñi ak seen conscience ku am lu la doy nga def léeg nga dugg ci place bo xam sa sa sa nangu bo forcé nak jëlé fa lo xamni di nga lor sa bopp lor sa njaboot gépp wax nañ ne dinañ ko julli yàlla na ko yàlla dogal moo nu gënal waaye bu tëjoon di woon ba ca kanam itam du wàññi dara lislaam bi lislaam bi seen xol yi la dugg ñoo xam ne diina ngi ci seen xol façon boo xam ne bu ñu leen ni yeewoon ñeenti loxo yi du teel ñu julli ak kenn ku ci ne ci sa façon julli gi daal dinañ ko dinañ ko julli ci kenn ku ci nekk ca këram sa luuf baytukum kenn ku ci nekk ci fa mu ko fekk julli ga lañ ca yéene mooy ñaanal àddina bi yëpp waaye particulièrement mu nekk prière pour Sénégal Música